abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te activé cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngeen man di ko jot ca tàng-tàng ba bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyid al mursalin wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jullit yi ñu bokk yàlla ñu ngi leen nuyu di leen ziyaar di leen baal àq di leen ku baalu di dellu si waat bi di misbaahu saalik bi sharhi asfaal al masaalik tey nag mbokk jullit yi ñu bokk yàlla tey la ñuy tëj téere bi tey lañ koy jeexal ci kàttanu yàlla alhamdulilahi rabbil alamin di koy sant bu baax a baax moom mi ñu tàmbalee mayoon ñu tàmbale ko ci bisimillahi rahmaani rahim ñu war koo jeexal ci tey ci alhamdulilahi rabbil alamin comme borom téere bi ni ñu ko waxee xamdan kasiran laysa yuxsa adadan fi kulli xaalin wanti intihaain wa ibtidaa ñun tamit ñu ngi wax loolu di koy bokk ak yéen di koy wax sant yàlla bu wér alhamdulilahi rabbil alamin yàlla mii nga xamante ne moom mooy maye lu ne ah yàlla may nañu ko ñu tàmbale ko téere bi li muy rëy rëy ah, ñu ngi koy tàmbale ñu ngi koy sante yàlla di koy tëj tey ci bésu tey bi le sant yàlla yàlla nañu ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi moo tax démb dafa waxoon ni na nga setalee sa xol ci tudd yàlla sa tilimu xol na nga ko da nga ko setalee ci tudd yàlla ndax néegu yàlla kat mooy xolu jullit bu set nee na na ngay gërëm yàlla tey fàttaliku yàlla te di koy màggal tey sant yàlla nee na nag walhamdulilahi ala tatmim sant naa yàlla ci matal gi ma matal téere bi mu ne xam xamdan sant la boo xam ne kasiran bu bari bu may sant yàlla boo xam ne lay sa yux sa adadan kenn mënu kaa tënk ci lim li may sant yàlla nee na fii kulli xaalin ci fa saa ci nu mu mënta mel rek muy xéewal ak muy muy ludul xéewal sant naa ci yàlla sant boo xam ne wantihaa in amul fu mu yem wabtidaa in am na fu mu tàmbale waaye amul fu mu yem gannaaw gu suma salaatu wasalaamu maa ngi julli tey sëlmal wasanaa tey gërëm bi kulli mahmudin ci képp ko xam ne mu ngi sant ala nabiyina sunu yonant képp kuy sant sunu yonant rek maa ngi sa maa ngi julli di sëlmal di sant di gërëm kooko noonu sunu yonant boobu mooy kan moo ne muhammadun mooy muhammad sallallahu alayhi man ka nga xam ne xaasa ala rutab làq na li gën a kawe ci ay marta moom yonant bi wa naa la am na it min mawlaaw ci yàlla boromam aksal arab li gën a sori ci aajo aajo yi nga xamante ni ñoo gën a xóot te gën a jege yàlla nakaree jot yonent bi sallallahu alayhi wasallam làkk na yooyu am na ko ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala kon ñu ngi koy santal yàlla moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na wala aali ak mbokkam yépp ñu ngi leen di santal yàlla wal asaabi ak àndandoom yi mu àndiloon ci jamonoom wala atbaay ak ñi nga xam ne ñoo toppoon ci ñoom tey xeeñ ci seeni sunna di def seeni ndigal di bàyyi seeni tere wal wuldi ak seeni doom ñooñu wal aswaaj ak seeni soxna wal ashba wal ashiyaay ak mbooleemu mbooloo yi mbooleemu mbooloo yi maanaam arab bu ne ashiyaa rek mooy waxuwa majtamaa mooy mbooloo boo xamante ne bi benn nit moo leen tënk ñu topp ko walla mbooloo mu dajaloo ànd di jaamu yàlla moo tax mu ne wa ala ashyaaihi jamiu shiatin wa shiatu rajul jamaatuhu wa xisbuhu mooy mbooloo moom ak ña ànd ak moom te nekk ci keppaaram wal muraadu asaabahu ñim ñim ci jublu mooy saaba yonent bi ak waman taba ilaa yawmi din ak ñépp ñu leen topp ba bés penc ñu ñépp dugg nañ ci kon ñaanal nañu moom borom téere bi nee bi àddi ci limuk ma du lépp lu feeñ ci li yàlla bind ci àdduna muy nit jinne malaaka melentaan sankalañ picc ak njanaaw lu mu mënta doon rek lépp lu feeñ ci àdduna rek limuk loola sant naa ci yàlla wamaa yaxib ak li nga xam ne moo fàddu te gisuñu ko xamuñu ko te looloo gën a bari sax li fàddu te xamuñu ko gisuñu ko looloo gën a bari ñeneen ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax wamaa xawaahu ilmuhu ak la nga xam ne làkk na ko xam-xamam moom yàlla almadroub boo xamante ne dañ ko multiplier xam-xamu yàlla ñu multiplier ko fi defi ci ay multiplier ci ay multiplication maanaam multiplier ko ci ay mil maanaam ñu def ko ay multiplier bu bari yu bari fii defi an fasil anaami kulliha maanaam ñu multiplier waat ko euh, ci nooyi mbindeef kulliha ñëpp mbindeefu mbin nooyi mbindeef yëpp nooyi mbindeef yi nag amul fu mu yem nit mbindeef la béy mbindeef la nag mbindeef la melentaan mbindeef la lépp luy dukkat ci kaw suuf muy doxe biir muy doxe ñaari tànk muy doxee ñeent tànk muy naaw ci kaw jaww ji lépp mbindeefu yàlla te day nooy lépp nee na maa ngi ciy def wa ma xawaahu ilmuhu madrub fii difi anfasil anaami kulli kon multiplier nooyi mbooleem lu yàlla bind mu maa ngi ciy sant yàlla te di ko ci gërëm min xayri lu àndul ma tënk ko tënkuma ko fenn day dem rek sant bi tënkuma ko fenn te du du jeex wantihaa du luy am dayoo amul fenn fu muy yem maanaam sant rek buy dem sant rek nee maa ngi sant rek moom borom téere bi mu wax loolu kon yaa rabbi yaa rabbi nee na yooyu sama borom sama borom maa ngi lay ñaan bi daaxal maajidi ngir barke yonent bi ñu ma daaxaa tusi yonent bi la daaxaa maa ngi lay ñaan ci barke yonent bi almaajidi bu tedd bi wa kullu wajhin maa ngi lay ñaan ci bépp xar kanam raakibin buy julli di sëgg wa ak buy sujjóot bépp xar kanamu jullit buy sëgg ak siggi maa ngi lay ñaan ci barke booba la la lay ñaan mu ne um surhu yal nag ma tasaareel téere bii di misbaaxu saalik wajal na nga def darsuhu ñi koy dar jàng lan bu buñ ko bàyyi mukk ci àdduna allahu akbar ci yàlla may na ko loolu nanga nga tasaare téere bi ci àdduna bi yépp nanga ko def ñu koy jàng te duñ ko bàyyi ba faw wan fa bi bi yal na nga def njëriñ ci téere bi wa saffihi li wajika na nga leeral sellal téere bi ngir sa xar kanam ngir sa jëmm yow yàlla subhaanahu wa taala wala yàlla defal na ko loolu nee na wax fir la naa yàlla nag ñu jéggal jamian mboole si ñun ñëpp yàlla nag ñu jéggal wa kulli muslimin ak bépp jullit bu jébbalu ci yàlla fu mu mënta nekk yàlla na ko jéggal wa waalidina ak sunuy waajur na nga leen jéggal yaa ilahal alam yow yàlla mi nga xam ne yow lañ bindeef yëpp di jaamu maa ngi lay ñaan loolu moom borom téere bi nag amiin loolu la ñaan fa la jeexalee téereem boroom xam-xam yi dañuy wax ne téere bii muy misbaaxu saalik bii téere la boo xamante ne bi nee na in rumta mazhabu maliki wa tariquhu su fekkee da ngay sàkku euh, ngir malik ak yoonam fil fiq ci wàllu fiq fastasabis tiraaju saali na nga jéem a takkook téere bii ndax téere bi li mu indi néew na téere bu ko indi kon walzam qiraatuhu na nga sax ci jàng téere siraaju saalik bii wa karrir darsuhu te ngay euh, di jàng di jàngaat di topp di toppaat dars yi ndax foofu huwa lu baabu li fiqi ndax moom moom kat mooy tànneefu fiqu mazhabu mas euh, maalik téere bi képp kuy soobu ci jàng boo ci dalee inchaa nga dégg ko am nga wutuwaay yépp moom nag bi muy tàmbali téere bi am na li mu ñaanoon te xam naa ne jàpp naa ne yàlla may na ko loolu ndax kat moom mii dafa ñaanoon ci ba muy tàmbale téere bi dafa waxoon ne yàlla maa ngi lay ñaan wa na yakuna xaalisan li zaati maa ngi lay ñaan téere bii na ko def mu nekk xaalisan li zaati yi yàlla na nga ko def mu nekk bu sell ngir sa jëmm yow yàlla wa mujiban lil fawzi maa mardaati yi yal naa nag nekk wareef ma mun cee amee texe ànd ak ma am ci it ngërëmu yàlla ci téere bi bu ma ko bindee wa fi an li ma xawaahu wa awqara yal na ma ko defal mu nekk téere boo xam ne dafay njëriñ képp ku ko aw awqara wala ku dem rek jàng ko wala nga jàng ko ba tari ko wala jàng ko ba maîtriser ko aw man waa wala koo xam ne jàng na ko ba ko aw man saa aw amara wala koo xam ne dem na sax jënd ko wala digle nañ ko jàng nee na ñoom ñëpp yàlla yàlla na leen defal texe àdduna ak àllaaxira kon jàpp naa ni ñaanam boobu mu ñaanoon ci tàmbali bi yàlla nangul na ko ko ñun tamit ñu ngi ñaan yàlla yal na ñu yàlla boole nangul ñun ñëpp ñun ñi koy wax ak yéen ñi koy dégg yëpp na yàlla boole nangul ñun ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax di leen ñaan ngeen ñaanal ñu yàlla yàlla jubal ñu. teg ñu siraatul mustaqim yéen tamit yàlla jubal leen teg leen siraatul mustaqim nangul leen seen i jàmm yàlla nangul ñu yàlla defal ñu ko def ko sunu misaanu xasanaat eh, seen mbokk woon seen xarit Abdul Qadir si ñi gën Abdul Qadir si ñi gën ko xamee ci Mahamadou si ñeene Mouhamad si wala Ibrahima si boo si wax baax na yal na yàlla may dégg topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.